di sant yàlla mi nu may ba ñu mën a daje ba mën a wax ci coobareem rek la wax ci nag du gàtt waaye du gudd waaye jëm ji nu àndal moo nu poñe rek ni mënoo bañ a def déclaration wax euh, jërëjëf sa question dëgg a jëkk dëggay mujj man laay xam naa sa laay raxamulaa dafa am ñaar yoo xam ni mag ñi daan nañ ko wax boo gisee ko naa fal leen ma ilimaan yàlla taxul dafa am loo xam sunu conscience la ñuy dox di ciy dox fal leen ma ilimaan du yàlla yi kese yi ca ilimaan ku ko xamoon buñ la ko falee da ngay fanaanee jooy ngir la ca nekk ci àq yi fal leen ma ma doon njiitum réew ku xaman la ca ne boo koy wut war ngaa tiit war nga tiit ba buñ la ko joxee ndax nga mën koo yor waaye li ñuy wax nit ñi li ñuy gëmloo nit ñi ak ni ñuy wute bokkul ak bu ñu yoree nañuy defee te nag askan boo nga xam ni seen imaan matatul seen gëm yàlla matatul niteetuñu yàlla jox leen buur bu mu niroog ñoom doom am yërmande en tant que nag soppeekuñu ku fi mën a ñëwit noonu doog lay demee askan bi kenn ku ne yaay taxaw feneen a xool sa bopp la res nag diini ji diini ji la Babacar si waxoon diini ji ku ko laal ñu laal la te diini ji mooy nit moo tax naka gay jeex ak tappale yi day jeex day jeex xam nga dafay am loo nga xam ni nit buy rëbbi doo ko doo jàpp wala di way ëppale mool yëpp bu ñuy dem géej waaye da nga naa yàlla ngeen jàpp mool yëpp bu ñuy dem géej da leen naa ngeen jàpp waaye tey boo nee diw yàlla rek a xam am nañ yaakaar ni man li ma la wax Sénégal mag ñaa ngi xool loxo yuñ koy teg lu leer nag laa lay wax ni Màkka mel la Sénégal di mel te lépp lépp ñëw na moo tax tamit bi yëngu te nag àddunaa yëngatu ndax dëgg ak leneen ñooy xëccoo te dëggay mujj moo tax àdduna bépp yëngu te nag jële nañ ca kilifa ya li ñu fi jaarale muy coronavirus amul moo tax kii ñëw ndax daa fekke woon fa ko mag ñu doon waxtaan amul te képp koo nga ni ne président nga boo nga xam bokkan nga ca réunion ya ba tëral coronavirus réew moom mën a doon ak président bu ca bokkoon di nga am loo doy sëkk loo doy sëkk ak te agsi na agsi na de président yi ko réunion woon coronavirus di ko def seen tappale pour nouvelle ordre mondial képp ku ci bokkoon am na problème barke yonent bi da ngay am problème te gisuma ku lay sawee dama moo am te nag dem nañ ba nga xamante ne nii nag euh, li nga xam ni moo am importance mooy ñu ngi wax mag ñi wax leen mag ñi wax leen dëgg la ndax dafa am loo nga xam ni euh, kuy saa xami doo mën a xaaxataay kuy saa xami nooy xaaxataay moo tax nag nit ñi nañ moytu nañu moytu ndax am na loo nga xam ni ni ma la ko mën a misaale mooy nga lekk ton lekk yàpp jaxase ñetti fan borosu woo soccu boo obbulee ci sa coro nu muy def sa gémmiñ loolu ne sa gémmiñ ko xesaw gi ku bàyyiwul itam nag ku la tàllal nga jël dërëm boo gis jël raxas nit ñi raxas état dugal ko ba ngay dem ba doo am ijaab ci yàlla moo tax ba boo ngeen seetloo boo demee ba wax nit ñi du ñu dégg say wax ndax li ñu yitteel moom mu yitteel ko mooy li mu faral di wax mooy askanu Sénégal nan lañuy def ba jàmm Sénégal nan la def ba ànd ak wér waaye nan la ñuy def ba doonaat ay jullit te nag yàlla di wax rek mooy di dund di nax sa bopp dafa wóorul na kenn ku ne xalaat bis bi ngay fanaan sa bàmmeel na kenn ku ne xalaat say jëf man laa yarxamu naasa laa yarxamullah ñu am yërmande ci askan bi ñu am yërmande ci jaam yi ñu am yërmande ci nit ñi ñu am dellu si waat doon ay jullit waaye di woote loo doonul di wane loo doonul di nax askanu senegal ba jullit yi dem nañ ba jaaxle nañu ba kenn xamatul fooy teg sa tànk ñii di wër hôpital yi ñii di wër maaman yi kenn ku ne ak say feem ak say phénomène ak sa waxin te yàlla rek mooy xaalimul xay bi moom rek moo xam li nëbb te moo xam li feeñ yàlla mooy hakim yàlla mooy jàbbaaru kon bu ñu fobee mbir mi nag bëgg a doon ay jullit nañu roy jukkoy yonent bi jukkoy yonent bi nag aka bari woon teggin yonent bi aka maandu yonent bi aka am kersa yonent bi aka dal yonent bi aka teey waaye yonent bi aka doylu waaye yonent bi musta noppi di sàbbal boroomam waaye ñun askanu Sénégal ñu gàttum xel ba wax jee jiitu jëf ji jëf ji néew wax ji bari jaamu yàlla gi matatul ba ñëpp sa ngéem ku yee mag ñi dee ñu am gàcc boo génnee ci mbedd mi ñun jullit yi ñooy yalwaan boo demee police ñun jullit yi la ñuy tëj boo demee tribunal ñu jullit lañuy la boo ubbee télé ñu ñun jullit yi ñooy xaste boo rotalee ci mbedd mi ñu jullit ñoo koy for est-ce que lii mooy jikkoy Seydunaa Muhammad kenn ku ne fëgg dën di wootey wilaaya di wootey daraja te wallaahi wa minallaahi maa ngi ñoom doo ci yem nag doonuñ ci dara ñamu doon rus nañoo yëkkati loxo ñamu doon rus nañoo yëkkati mbag te ñamu doon boo leen séenan ak seen cër ba leen yàlla jox buñ la nee ñee ca gaay yàlla ya doo leen xàmmee kon waree dund war naa jeex ndax boo demee ca sóoratu xiyaam fa yàlla yi waxe bal insaan wax laa nafsihi basiran yàlla nee na tee ngeen dal te yéen ñii di ay nit ma bind leen ngir leeru Muhammad kenn ku ne xam nga sa bopp ku baax xam nga ku bon xam nga kuy jëw xam nga ku iñaan xam nga ku soxor xam nga ku yuleeku xam nga ku ne dox intérêt xam nga jikko yooyu du màndargay kuy dem ajan di dund nag di nax sa bopp wallahi boo duggee bàmmeel di nga àdduna jaru ko bu ko defee ñu dal ànd ak tey yéen ñi nga xam ni ñëw ngeen fii xam leen ni lii da ngeen ma poñe rek waaye awma ci ndigal te ci ndigal dong laa fas yéene ndax depuis ñaari at lee mu mat ko moom dama ni demal nga toog toog gi ma waxoon ba suñ joon yàlla tey jóguma ci tali bi sax dama fa dem naani café ñaari at génn ma sama kër ñaari yoon laa fi génne muy benn xew bu ma doon dem te tooguma fi cinq minutes ndax koo nga xam ni cëram la ko yàlla cëral soo ko doon wax géej la du doy sunu Sénégal gii wallaahi kenn mënul fexe ba du dëgg mooy dox kenn mënul fexe ba dëgg yii kenn suuxal ko sunu bakkan lañ ci teg barke yonent yàlla muhammad ànd ak dal moo tax mbooloo mii fii ñëw am na lu ma dénkoon ba tey nag bu nu ñëwet moom laay dox ak ñoom amu ci kenn ci àdduna ku mën a tàllal loxo ni bàyyi jóob moo ni may ma wala fay ma man day li may def su ma ci yegul sama bopp sama diggante sama borom duma ko def tafi sabili la lay def waaye doonu jullit te bañ a waney daraja bañ a waney puukarew bàyyi jëw yi bàyyi jëwante bi bàyyi iñaan bi bal insaanu ala nafsihi bashiran waaye nit xam na boppam moo tax nag man laa yarhamu naasu laa yarhamullah yàlla nee na ko amul yërmande ci nit ñi billahi du ma yërëm ñu am yërmande dund dund bu tey dund dund bu dal dimbali askan bi dimbali nit ñi